loolu mooy seeni référence bu doon loolu la kon lu bari ci liñ nekk tey ñoom duñ ci ne ndax amuñu luñ ko mën a firndeelee ci alquran wala ci sunna kon loolu nit nga bañ ci waru yow mi leen di gis ñuy toog di débattre di wax ci ay mbir naan dañ yàlla moo ne lii yonent bi moo ne lii nangam di ko jéem a discuter ci façon boobu ci niveau boobu rek yem ci niveau boobu loolu du seen méthode seen méthode mooy li ma la njëkkoon tuddal ci ne la alxuraan ak sunna jooju ay junj la yoo xam ni des ko fee war a bàyyi xool yi ña nga xam ni ñoom xam nañ junj yooyu la ne ca gannaaw lu ñuy wax ñu jël ko te ñooñu fa ñuy jëlee ay yeneen bunt yu bari la yoo xamante ni du dellu ci alxuraan wala ci sunna benn bi ci des mooy alxuraan kon ñoom jàpp nañ ne dafa nekk loo xamante ni bi am mbóot la am moo xam ne da caa ne mu ne su koo xam boo koy jéem a xam da ngay yàqu bu fekkee àgguloo ca te la chaque ne alquran nit ki pour mu tafsir ko tafsir bi tax ñuy wax tafsir buy tafsir ñoom bi ñu tuddee saayir wala zahir mooy nit ki foog mu uti yow am xam-xam am niveau bi yàlla may ko niveau xam-xam boo xam ne may na ko bagage bu mu am ci wàllu usulu tafsir ak ak madarisul mufassirin ak wàllu luga ilmul bayan ak yu mel noonu naxu mën a uti yow daal ba mën a am lu mu tafsiré alquran pour mën a xam waxu yàlla subhanahu wa taala lan lañ ci nam bokk na ci bagage yi mu gën a soxla muy xam sunna fahmu sunna fahmu bu bu mucc ayib xam ko xamin boo xam ne xamin bu yaatu la ndax lu gën a am solo ci li ñuy tafsiré alquran mooy alquran ak sunna mooy nga jëfandikoo alquran ak sunna ngir tafsir kaddu yàlla bi ci topp mooy waxu saxaaba yi ak ñi saxaaba yi yar muy kalaamu salaf waaye ñoom dañuy wax ne mbóot mi cheikh yi ñoo ko yore diw ak diw ak diw ñoo yore mbóot ma kon nañ dem ci ñoom la ñu bind ak la ñu wax te bàyyi alquran léegi loolu lan la jur daanaka koo ci gis mu nekk ab cheikh bu yor yoon rek bind na ay it muy ay way yoo xam ne dañ koy bind bu ñu ko bindee nee nañ loolu ca la ñuy def mbóot mi nekkoon ci alxuraan ak sunna te nit ñi waroon dem di ko uti ji kon bàyyi leen ko te ngeen ñëw fekk fekk ko fii wax ci loolu ngëneel yoo xam ni doo ko fekk ci téere yàlla bi doo ko fekk ci sunna yonte bi alayhi léegi bu bu ko defee nit ñi loolu ci la ñuy ne suba ak ngoon di ko jàng di ci ut yool di ci ut mbaax di ci ut ak laab di ci ut njariñ bàyyi téere yàlla bi bàyyi sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax mu tasaw yu fay foo leen fekk yittewoo bi ñu yittewoo seen xasaayid yi nga xam ne seen sëriñ yi ñoo ko bind mooy féete kaw yittewoo bi ñu yittewoo alquran alquran dañ koy jàng ngir barkeeloo ko loolu maa leen ko wax barke moo leen ci yóbbu même bu ñu ubbee ay daara di ko ca jàng jàngu barkeelu la mais nekkul jàng pour jàngal nit ki alquran ji mu xam ko xam li muy tekki tënku ci di ko yittewoo di ci dund ak ak sunna nekk ca wet ga ñu koy topp di ko dund ndax li lay gën a firndeel loolu mooy yittewoo gi ñu yittewoo alxuraan ci di ko mokkal ak di ko mokkalaateel sunna newul ca wet ga te nit mënut a jàng alxuraan jàngu dégg ko te jëf jëfewul sunna buñ boole woon ci njàng ma njàngaleem sunna mu nekk ca wet ba kon bu boobaa di wax ne kon ñoom dañuy jàng alxuraan jàngub dégg ak jàngub xam ngir mën koo jëfe waaye jàngub barke lañ ci jàpp koo xam dafa war a jiitu ci li muy jàng ak itam li ñu fi fekkoon ci ay doxalin yi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci maaliki yuun yi te maaliki yuun yi maaliki ya ak suuf ya bokkul ndax fii li fi nekk mooy ci wàllu mazhab fiq ci maalikiya lañ sukkandiku bu dee ci wàllu pas-pas ci buntu pas-pas sa digganteeg sa boroom ci wàllu alasmaa wa sifaat ay ashaira lañ mais ci wàllu yoon ay fa lañ boole ñetti mbir yoo xam ne yépp bu ci nekk ak moroomam daal doy na waar lool. léegi kon doxalin boobu kon ay manhaj la ci jàng boo xam ne dañ ko fee fekkoon naka jekk mu jóge ci almaghribul islaami ñëw fi. nek ne am nay téré yo xam mom la jaar ci jang li ci ñëk moy ki jang day jangal quran bu ci jógee jang yenn mutuun muxtasara yi di ci jaar étape par étape ba ni ba ni nga xamanteni bi non lay jëlé li jël ci seeni bind mais ala kulli hal bind yoyu li nga xamanteni ni ngay fekk ñi nga xamanteni bi ñoy ndonga yi soobu ci yoon tasawuf haqiqatu tasawuf motax may wax waxuma ku ca jeexitalo wala ko xamanteni ni ko ca yar li jox yitté ci mbir yoyu qasaid yoyu ci bind yooyu nga xamante ni seen sëriñ yooyu bind nañ ko du ko jox alquran du ko jox alquran alquran ji mën na koo jàng ngir barkeelu waaye wax joojo lay gën a yëttewoo moom lay gën a jox jëmm moo tax koy waxal ci ñoom boo bëggee mu dégg li muy wax siteel ko waxu lu waayam wax mais bul fi nekk naan ko yonte bi alayhi salatu wasallam nee na nangam ak sàngam même bu fekkee sax ay nettali yu ñuy nettali nii muy siiw ay xisas yu ñuy nettali ci dëkk bi dañ koy gëm référence yi gën a dëgër ci gën a wér yi ñu dajale ay waxam muy Buxaari ak Muslim ñoom jàppuñu ne lu wér la lu jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalam dañ koy ne lu wér la luñ jëlee ci yonente bi alayhi salatu lu leen ci neexul àndul ak ñoom la ñu wax mën nañ koo rejeté ci façon boo xam ne bu terre à lay doon te lu ñu leen toxalal jële ko ci seen gaa yooyu ci ne ay nettali sax même bu ñu ko bindul fenn ñu daal koy jël kon loolu seen taxawaay la ci ne alquran dañ jàpp ne mu ne su ko dégg mu ne su koo xam ba tax na ñoom nu leen neex lañ koy tekkee ñaareel bi tamit mooy dox gi ñu dox ci diggante nit ñi ak alxuraan bi sawa bi seen euh, xasaayid yooyu bu dee sunna nag sunna mooy ñaareelu delluwaay bi ñu war a dellu ci lislaam yàlla subhanahu wa taala wàcce ko ci yonante bi alayhi salatu wasalaam def ko mu nekk ab delluwaay ak sukkandikukaay bu ñu war a sukkandiku yàlla itam ba mu ko defee mu nekk ab sukkandikukaay bu ñu war a sukkandiku digal nit ñu jëfe ko digal nit ñi topp ko وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يالا ديغال ني جافيكو ديغال ني توبكو دا فا واخني موم موكاي سام انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يالا واخني موكاي سام بروم موم خامي واخني ذكر القران اك سنه داف دوغ داخ سنه ذكر لا داخ وحي لا منزل من السماء وحي لا من الله تي لي يونس عليه الصلاه والسلام واخني الا اني اوتيت القران ومثله معه كون سنه ني القران نيكاي ذكر خو سنه تام نون لا نيكاي ذكر te gis nañ yàlla subhanahu taala wax ne wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal xikma wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi mu teg ci ne wal ayatu llahi mooy quran al xikma mooy sunna yàlla ne nañ ko jàng ci seen kër ya jàng gi ñu koy jàng mooy di xam atte yi nga xamante ni moom la yonte bi alayhi salaam jàngale ci sunnaam kon bu yàlla ne moom mooy sàmm zikr dafay sàmm quran sàmm sunna ñi wax ne zikr mooy quran itam dañ ne waaye bu ko yàlla diglee digee ne dina ko sàmm mooy dina sàmm sunna ndax alxuraan mu ne su koo xam xam lañ ca nam te xamuloo sunna yàlla ba muy digle ne dina sàmm alxuraan waxul rek ne day sàmm araf yi day sàmm baat yi waaye day sàmm baat yi sàmm tamit contenu bi sens bi kon bu sàmmee baat yi sens ba réer loolu kon mooy sàmm ko kon loolu moo waral bu sàmmee alxuraan ngir sàmm sens bi mu sàmmaale sunna ndax bu sunna réeroon julli sax duñ ko mën a def julli yàlla subhanahu wa taala ci loolu mu tàggat ay góor yoo xamante ni ñoo jël seen dund yépp jeexal ko ci jàng sunna ak wattu ko ak sàmm ko ba lépp luñ ci mës a yokk benn xaraf ñu génn ko leeral ko jël sunna daal di koy dajale bind ko ci jamono omar ibn abdul aziz en tant que amir boo xam mooy amirul muminin moom moo jëlal boppam décret ne dafay dajale sunna yonte bi alayhi salatu wasalaam ci jamono joo xam ne borom xam-xam yi ñi ngi fi jamono joo xam ñi jàngee ci saxaaba yi ñi ngi fi fees dell ci àdduna bi mu bind leen ne leen bind leen sunna ji ngeen jàngi jële ko ci saxaaba yi dajale leen ñu dajale ko bind ko ci ay téere ci loolu la xam-xamu sunna tàmbalee di màgg di ñor façon xam-xam yu bëri di génn ñu ko tuddee usulu ilmi alhadis ilmu ilmu alhadis wala ilmu usul alhadis ñu koy tuddee noonu mu nekk ay xam-xam yu bëri yoo xam ne bu ci nekk ay xam-xam yu leer la yu am ay base am ay règle yu ñuy jaar nit ki mën koo jàng xam ko xam ci yan yoon la borom xam-xam yi di jaar ngir di tànn ak di segg hadis yonente bi alayhi salatu wasalaam ñoom nag yaakaar nañ ne borom xam-xamu xadis yi dañuy lekk ba suur naan seen ndox mu sedd jaaxaan rek ne xadis bi wér na bi wérul moo tax saw yu fay loolu lañ foog moo tax joxuñu xiima joxuñu dayoo ilmul xadis ba ca borom xam-xamu xadis yi nekkee di ko yittewoo di ko jàng ak lijjanti ay ñoom Shuba ibn al-Hajjaj ay ñoom Abdurahman ibn Mahdi Malik Zuhri Ali ibn al-Madini Bukhari Muslim ñooñu bañ ciy jeexal seen temps ñoom ñu nga seen biir kër tëju ne fa di jàng seen i ak seen i yaakaar nañ ñi dañuy font ñi la ñoom jël seen temps yépp jeexal ko am na si ñoom ñoo xam ne njaboot sax amuñu ko buxaari amul sax soxna dundam yépp ci sunna yonte bi alayhi salatu wasalam la ko jeexal dundam yépp nelaw guddi sax daaw ko def ba yaan jàndoor ndax jàng sunna yonte bi alayhi salatu wasalam ñooñu yàlla tàggat leen ñu sàmm sunna yonte bi alayhi salatu wasalam loolu mooy dëgg dëgg bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam mais nekk ci say kër laqatu fa nefa di def say azkar yoo xam kenn digalu la kenn santu la ko yaakaar ne yow yaay ki mat yaay kiy fóot sa xol bàyyi diine muy sànku dégg nga boo toogee sax ba mu ne ba mu yàgg nga ni ñii daal dëgg-dëgg xam-xam biñ topp nii rek xaaral daal di ne diw nettali na ma diw nettali na ko diw nettali na ko yonte bi alayhi salatu wasalam nee na ku jàng alquran di nga am nangam ak sàngam hadis ba daal di tasaaroo ci nit ñi ñi di ko nettali ndakate yaa ko sos ci sa biir kër soxba mus cee topp benn hadis di ko wër kenn nettali ko hadis ci fadailul quran saar bu ne mu wax lan la mooy ngëneelam ci alquran saar bu ne li mooy ngëneelam ci alquran ba alquran yépp jeex Shuba ne ko lii de li nga ma wax keroog ko nettali ci àdduna Shuba moom yooyu rek moo ko doyoon borom xam-xam la woon fóore la woon ci ci ci ci ci ci ci ci xadis moo mës dugg ci ci ci ci benn borom xam-xam xadis mu fekk ko mu yor téereem di jàng dafa ne tëll waa ji sànni téere ba mu wadd ndax tiit noonu la ko gaa yi ragalee woon Shuba moomu moo defoon boppam koo xamante ni da doon jihaat moom ngir sàmm sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo doon dundam moom spécialité am la woon Shuba ibn al-Hajjaj ba di wër dëkk par dëkk dëkk bu mu tukki tukki yu sori trajet yu gudd yoo xam day dem dëkk def ay at ay weeri weer ci yoon bi bu àggee dem ba ci kër kooko ñu ko waxoon ne ko yow xadis sàngam nga ni ko la ko nettali mu ne ko diw ci dëkk sàngam mu dellu ci dëkk boobu du sonn de di ko wër ba àgg ci benn dëkk bu ñu tuddee Abadan bu nekk ca Irak ca Basra fa fa ma waxoon ne fa la mbir ma sosoo nee na mu dugg benn kër fekk benn góor ma nga toog ay xale wër ko di jàng mu ñëw daal di ne xadis nangam rek kooku daal di jàpp loxoom na ko kaay dugal ci néeg bi am na góor gu fi ne nga laaj ko mu dugg fekk fa génn góoru mutasawif ne ko xadisu fadailul quran moom sëñ bi dégg naa yow yaa ko nettali diw ku la ko nettali mu ne kenn nettaliwu ko damaa gis nit ñi ñu topp magazi ibnu ishaq ibnu ishaq mi fi ne di leen nettali ay histoire ak yonent bi defoon na fii demoon na xeexi ji fii defoon na li defoon na lii topp fiqu imam abi hanifa mu naan leen lii laab na lii laabul li ñu topp ko rek bàyyi alquran ma bëgg ñu delluwaat ci alquran ma sos ko kon dama ko def ngir fen jàppale yonente bi alayhi salatu wasallam waaye fenalu ma ko maanaam ñoom wax naan akdibu lahu wala akdibu alayhi yonente bi daf ne man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqadahu min annar ñoom ñuy wax ne nahnu nakdibu lahu wala nakdibu alayhi moom daf ne ku fen sama kaw ñun fenuñ ci kawam dañ koy fenal mooy dañuy fen ngir jàppale ko déggin boobu lañ amoon kon ñoom ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ci seen doxalin ba léegi mu tasawifa yi xadis bu leen neex nettali ñenn si ñoom jàpp nañ ne bu maana bi wéree jub nekk lu baax rek mën nga wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax ndax am na xadis bu ci ñëw boo xam ne xadis mawduu la al imam ibn al jawzi mi ngi koy leeral ci al mawduat kon foofu la ñuy taxaw buñ jullee ba noppi insha allahu taala ñu ñëw jéem a àggale li ci des wallahu alam بارك الله فيك بارك الله فيك نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كون نيغي دون وقتي سين تخاواي سي سنة ني وخون ني سنة نياريلو دلو واي بي دلو سي الاسلام غير ليونال يالا سبحانه وتعالى سامكو سي تاغات بيم تاغات اي غاي ني جيخال سين دوند سي جانغ سنة اك سامكو نيوم يتو ووغ ريغل ييغا خامني سي لا بوروم خام خامي xadis yi di sukkandiku ngir di leeral li wér ak li wérul moo tax ibnul jawsi wax ne innama qallat culumu fa takallamu bi araihim alfasida fa in asnadu fa ila xadisin dacifin aw mawduc aw yakunu fahmuhum minhu radia ibnu mas ibnu ibnu jawsi nee na ñii seen xam-xam dafa néew moo tax waxe seen ay xalaat yoo xam ne yu yu yu yàqu la nee na bu ñu askanalee li ñu soloo li nga xamante ni moom la ñuy jëfee mu ne fañ koy delloo ci xadis bu wérul lay doon wala xadis moom dañ koo sos da leen di fekk ñuy sukkandiku ñu bëri ci seen i pas-pas ci ay xadis yoo xam ne wérul wala ñu mu nekk xadis yoo xam ne dañ koo sos amul benn cëslaay ci sunna du sax lu ñu war a tudd wala di ko sukkandikoo ci la ñuy tabax seen diine wala mu am wala mu ne ñu am ci ay dégg-dégg yoo xam ne yu yàqu lay doon seen taxawaay ci sunna bokk na ci li mu liñ tëjewoon waxtaan bi mooy jàpp ne mën nañoo jël ay ay wax ay xadis ko askan la yonente bi alayhi salatu wasalaam même bu fekkee tuxale ko jële ko ci moom buñ jàppee ne maanaa bi wér na wala jubluwaay bi baax na rek loolu baax lay doon mu bokk ci li nga xam ne moo gën a waral ñoom ñu ñàkk yittewoo sunna lool mooy jàpp nañ ne am na yeneen yoon yu ñu mën a jaar di jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam budul yoonu tuxal di jaare ci ay xadis ndax comme yonente bi alayhi salatu wasalaam dafay ñëwaat ci àdduna di dajeeg seen awliyaa yi ñu jële ci moom directement kon jarul ñu sonn ci xadis ci téere yi nga xam ne bind nañ ko ci xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam te xam nañ yonente bi alayhi salatu wasalaam du delsiwaat ci àdduna ñu koy gis ak bët yaqazatan loolu saxul wérul li wér boo wér mooy gis ko ci nelaw gis ko ci gént bu fekkee wér na ni ko gis moom la gis bu fekkee wér na ni ko gis moom la gis mooy mu xam ko ci jëmmam xam ko nu mu mel mu leer ko ni ki mu gis moom la bu boobaa feexlan moom la gis loolu benn la ñaareel bi tamit mooy gis ko ci nelaw du du delluwaay bu ñuy jëlee diine joo xam ne dañ koy yoonal di ci sukkandiku ci diine lu nit di baaxee nit la ci loo xamante ni yàlla moo koy baaxee ab jaam ci jaamu yàllaam ak ci nekkam bi mu nekk fii ci àdduna di góorgóorlu ci lislaam loolu mun koo feeñu mu am lu mu ca jële ci lu koy gën a ñaax ci diineem wala lu mu koy baaxee lu jariñ jullit ñi lu mel ne masalan jullit ñi nekk ci njàqare am benn solution boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala mën na ko jaare ci noonu mu gis ko jullit ñi def ko yàlla subhanahu wa defal leen ci ak ubbeeku lu mel ne ñu jaamaarloo seenuk noonu wala yu mel noonu waaye kanta def ko mu nekk delluwaay boo xam ne da koy gis ci ay nelaw mu lay jox ay diine di la jox ay yoon di la jox ay jaamu yàlla nga koy jël di ko yoonal ci diine nga xam ne foofu mooy delluwaay bi loolu doxalin boobu wérul ci lislaam te ñoom loolu seen bunt bu bu yaatu la boo xam ne lu bari ci li ñuy jëf foofu lañu koy delloo duñ dellu ci luñ toxul jële ko ci yonente bi alayhi salatu salaam mu wér di xadis waaye ci balluwaay boobu lañuy ñuy dellu ngir di sukkandiku ñu jàll ci buñ jógee ci tomb xëy na wax ju njëkk ji dañ cee xawoon guddal tuuti ñu gàttal tuuti mooy pas-pas bi ñu am ci yàlla subhanahu wa taala ak saxal bi ñuy saxal borom bi subhanahu wa taala ak amam ñoom dañuy saxal amuk yàlla loolu lu wér la waaye liñ ciy taxaw tuuti mooy saxalin bi ndax yàlla subhanahu wa taala moo jiitu lépp lu am moom mooy ki sàkk mbindeef yi lépp lu am rek yàlla subhanahu wa taala moo la sàkk nekkul ne moom mooy jëmmi mbindeef yi waaye ak mbindam lañ koo xam ne moo ko leen sàkk ci mbindam la ñu amee mooy kon alxaaliq li leneen li ci des di mbindeef yi di almaxluuq lim leen amalee mooy alxalq mooy mbindam di ne moo leen bind moo leen amal bim leen amalee itam sàkk àdduna bi ak mbindeef fi ci nekk xamal nañu ne moo féete kaw arsh arsh bi nga xam ne moom moo féete kaw lépp luy mbindeef rek arsh moo la féete kaw daf leen ndar képp mbindeef yépp féete leen kaw amul mbindeef bu ko dépassé la weesu arsh féete ko kaw loolu mbindeef newu fa foofu du mbindeef du temps du jamono du lenn luñ koy melal ci melokaan yooyu ndax loolu yépp ay mbindeef lañu jamono ji ñuy dund di temps bi mbindeef la loo ci mën a wax ci yooyu ay mbindeef lañ loolu yépp ak li ci mën a am du dépassé arche la ko féete kaw yàlla foofu la féete kaw moom arrahmanu ala al arshi stawa loolu mooy arrahman ala al arshi stawa mu féete kaw arche boobu loolu pas-pas bu wér la boo xam yàlla moo ko saxal ci alquran yonente bi alayhi salatu saxal ko ci sunna mais pas-pas boobu doo ko fekk ci al mutasawifa wala bokk li ëpp ci ñoom léegi bu fekkee saxaluñ pas-pasu ne yàlla subhanahu taala dafa féete kaw arsh googale te xam nañ ne imma da ngay nekk ca biti wala nga nekk ci biir kon boo nekkul ca biti yaa ngi ci biir bañ ne newul ca biti ñu nekkoon kon mi ngi ci biir kon dafa jaxasoo ak mbindeef yi mi yàlla mu ngi fépp loolu mooy alxulul am mooy xulul bi ñuy wax jaxasoo gi nga xam ni jaxasoo lu mel ne comme butéel bi ni nga jëlee ndox mi def ko ci biir butéel bi nekkul ndox mi ndox mi nekkul butéel bi waaye ndox mi ci biir butéel bi la nekk yàlla noonu la mel ci mbindeef loolu benn xeet la yi loolu benn xeet la ci xeetu xulul yi ñeneen wax ne moom mooy jëmbi mbindeef yi ñu leen tuddee ahlu wahdatul wujud mooy benn existence moo am mooy yàlla mooy mbindeef yi mais ni ñu ko expliqué ku mel ibn arabi daf ne yàlla mooy existence bi mbindeef yi ñoom ñooy jëmm ji mooy mu def différence entre existence dara ak jëmmam te loolu xam nga du dara parce que existence bu ñu ko waxee mooy jëmm ji existence ñu tudd ci làmmiñ la mais amul lii existence dañ ci namm rek mooy jëmm ji taxaw sa kanam mooy dafa exister mais existence bi da koo def loolu mooy yàlla mooy existence bi ngay wax mais jëmm ji mooy ñun loolu moo tax ñu uute ndax jëmm mën na uute mën na am ay kii mooy léegi nit ñi ñun ñooy jëmmu yàlla kon ñooy jëmmam mooy yàlla moom ci ñun lay feeñee loo gis ci ñun rek jëmm la ci yàlla moo tax moom daf ne loo gis rek gisee fa yàlla loolu yàlla la bu fekkee yàlla yaa ngi ko gisee ci butéel bi yàlla la bu la neexee nga jaamu ko boo ko gisee ci mbaam xuux mi yàlla bu la neexee nga jaamu ko bul def erreur ne loolu rek mooy yàlla bis boo ko waxee da ngay tàbbi ci shirk loolu moo tax yonent yi ñëw di tere gaa yi naan leen bu leen ne yii rek mooy yàlla yi ngeen di jaamu ci la bokk waaye du moom kese moo tax bi Moussa demee ci Firawn ci ci yàlla subhanahu wa taala delsi ci ndig ba bi mu delsee ñëw fekk gars yi jàmmu xërëm bi mer bi mu mer ak coow leeg lépp li ko waral mooy la fekk ñu jàmm loolu kese buñ ci boole woon leen problème du am léegi loolu déggin boobu di wextatul wujud boobu di gëm gëm ngëm boobu du doy war la ndax xulul bi nga xamante ni wax nañ ko sànq ay xaaj la muy jaxasoo bi am na beneen xaaj boo xam ne dafay mel ne jaxasoo soow moo jël sotti ko ci ndox jaxasoo goo xam ne soow day ñëw sotti ko ci ndox loolu mooy al xulu xulul bi nga xam ne xulul xaasu la mooy xulul bi nga xam ne yàlla da koy tàbbi jaxasoo ko ak jaamam ñi ci ñi nga xamante ni jaamu nañ yàlla baag ci benn étape bi dañuy wëlbatiku seen jëmm nekk jëmmi yàlla ñu jaxasoo ak yàlla subhanahu wa taala ñoom seen bopp ñu mujj nekk yàlla subhanahu wa taala jaxasoo bi day mel ne ndox moo sotti ci bi biir soow moog soow mi ñu jaxasoo nekk benn matière noonu la yàlla di mel ci ñoom loolu ñu ngi ci sukkandiku ci xadisu man aadaali waliyan faqad baarastuhu bil xarb wala faqad baarazani bil xarb ba xadis ba jeex xadis boobu mooy seen tegtal bi gën a màgg bi ñuy tegtal ak li mel ne li yàlla di wax jaamam ne ko feebaroon naa seet siwloo ma xiifoon naa leelaloo ma ak yu mel noonu mu laaj ko yow nooy feebaree nooy xiifee mu ne sama jaam diw feebaroon na boo ko joxoon lekk bi di nga ko fekk ci man ak yu mel noonu mel na comme yàlla mooy jaam bi jaam bi mooy yàlla genre xadis yu mel noonu la ñu sukkandikoo pour wax ne kon yàlla dina jaxasoog jaamam ba nekk jaam bi te loolu pas-pas bu doy waar la boo xam ne ñoom seen déggin kon ci amuk yàlla ci ñaar yooyu du ko génn imma mi ngi ci biir jaam ñi ci biir mbindeef ñi comme euh, maaya bi yàlla di wax wa huwa maakum aynama kuntum fu ngeen nekk mi n ak kon yàlla mi ngi fépp te xamul ne maaya boobu maayatu xam ak gis ak tiim gum tiim ak dara ñàkk koo ump ci mbiri jaam ñi ci loolu lay dellu ak xam gi ak xam gi nekk gi muy nekk ak jaamam ñi tamit ci di leen dimbali ak di leen taxaw ak yu mel noonu waaye bu dee jëmmam jaxasoo wala ñoom nekkul ci biir mbindeef ñi subhanahu wa taala sori na foofu kon imma ñoom ci loolu la ñuy delloo amuk yàlla subhanahu wa taala ñooñu nga xamante ne bi ñoom ñooy wax loolu nga xam ne ku mel ne ibnu arabi bi mu ñëwee daf ne junayd ci boppam junayd nga xam ne ci seen kilifa yu mag yi ñuy dellu ci seen tariqa bi la bokk ibnu arabi nee na dégguñu dégguñu tawxid neen li tax dégguñu tawxid parce que junayd bi ñu ko laajee tawxid daf ne tawxid moom mooy ifraadul xudus anil qidam mooy lu gaar bul ko melal melokaanu lu fi mës a nekk loolu la wax mooy kon dafa def ñaari existence lu fi nekkoon ñu koy tuddee waajibul wujud muy al mujid ak koo xamante ni bii mawjud la boo xamante ni xaadis la nekk mumkinul wujud kon dafa am xadim ak xaadis xadim bi mooy yàlla xaadis bi mooy ki am june di ne bul jël ki ki ki gaar soog a am nga koy def mu nekk ki fi nekkoon naka jekk di yàlla mu ne loolu mooy taw tawxid mooy kon ku nekk nga delloo ko ci am ak amam ak existence am ibnu arabi yi ñëw ne différence boobu ku ko def déggloo tawxid شيوخ يوي خا نني شيوخ متصوفا لاني بوكون بيان كاني واخ اتحاد دم با بنو مي اكزيستانس مي نانا نيوم نيار مون نني دم با جاخسو سي يان انامي مي ابن عربي موم نيو دا فا نيو ني موم وجود بي بن لا لي الكسره والافتراق ولا الاختلاف ميغي ديلو سي الماهيه لولو وقت يمشي وقت يزوي وارلو يخلي منكو جيلي سي فيلوزوفي لي ني وقت سي قدم العالم ci ne monde bi dafa dafay mës a nekk comme dafay mës a nekk amul nekk bu nekk keneen ku ko jiitu loolu rek moo fi mës a nekk buñ ko waxee ne yàlla mu ngi ci wax ne mbindeef fii ñu ngi ci kon loolu dañ koy expliquer mais benn mbir bi rek moo fi am leneen amu fi. ak tamit mi yeey li mu wax ci li ñu def différence ci wàllu euh, as-sifaat wa zaat ak yu mel noonu ci yooyu la ko jëlee ak tamit ci suufiya yeey li ñuy wax ci al-fana fana boobu dinañ ci ñëw insha allahu taala muy jeex ci yàlla. wax ñu ci wax ci la ibnu arabi sukkandiku ba mazhabam bu bon boobu mu daal koy tabax mu nekk mazhab boo xamante ni tas mutasawif yi daanaka ñi ci mujj ci ñoom ginnaaw bi bëreetuñu jàpp nañ ne benn am moo am mooy ne yàlla subhanahu mooy mbindee fii ñi mujjee ñëw ci ci tarixam ci ay ndongaam ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo naanee ci ma ci ci naanu balluwaayu ibnu yi ñu bari si ñoom dañ dem ba gis ne waxam dëgërul trop ñu jéem koo gën a dëgëral am ci ñoom ñi ñëw def différence entre it mutlaq bi charte itlaq ak mutlaq bi la charte itlaq lu mel na nga ni ndox ba pare ne ndoxum géej ndoxum teen ndoxum robine xam nga yooyu dañoo ute waaye boo nee ndox ñoom ñëpp ñu dellu ci ndox ma nekk benn kon noonu la noonu la ñu demee rek boo nee man ne yow ñu uute waaye boo nee yàlla ñu nekkaat benn ndax maak yow ak ñun ñëpp ñooy yàlla am ñeneen ñu ñëw gis ne loolu yëpp tamit dëgërul ndax loola nga ñu boole du lu am bu ñuy bokk dañuy bokk ci lu am ndax ndox ma nga wax tudd ko du lu am ci làmmiñ la yem ndox yi nga melal benn bu ci nekk looloo am kon loolu dëgërul ñu bàyyiwaat loolu ne benn am moo am muy amuk yàlla gi am mooy amu mbindeef yi muy wujudullah huwa aynu wujudul maxluq loolu fa lañ mujjee pas-pas boobu noonu xam ngeen ay mbiram nga xam ne nit ki kon daanaka bu fi nekkee di def ay jullee ki day def ay formalité rek mais daanaka soxloo ko woon ndax boppam lay jaamu ci loolu nga gis ne li gën gën a tàbbal ci wax yooyu bokk na ci seen fanaa bi ñuy wax muy jeex ci yàlla bi dem ba jeex ci yàlla ndax ñoom dañuy wax ci jeex ci jaamu yàlla mooy nit yàlla rek lay jaamu du leen dul yàlla loolu baax na mooy laa ilaha illallah comme na ko ibnu taymiya waxee jeex ci gis leen dul yàlla jeex ba dem ba sab gis jeex ci yàlla mooy loo gis yàlla nga koy jàppee loolu mënees na koo déggee ci anam bu mucc mënees na koo déggee ci anam bu muccul anam bi mucc mooy loo gis yàlla nga ciy xool du moom ngay xool comme yàlla mais yàlla nga ciy xool loo gis rek yàlla la la ci yàlla lay delloo yàlla lay fàttali muy sab gis kon benn gis la mooy yow yàlla rek ngay gis ci sa ci sa lépp tey loolu mënees na ko déggee noonu waaye bu dee loo gis jàppee ko moom ci jëmmam mu nekk yàlla mu nekk njuumte ñaareel bi mooy marxala boobu étape boobu ñu jàpp nañu ak mat la Cheikh Islam nee na ak matadi la ndax ki gën ki mën a ràññetle mbir yi ci niñ nekkee ci seen nekkin moo gën a mat ki nga xam ne mënut a ràññetle lenn lépp benn gis-gis la ci am loolu nañ xalaat bu baax beneen bi ci des muy fanaaul wujud mooy jeex ci sak am mooy leneen amul lu dul yàlla loolu mooy seen étape bi gën a kawe ci fana mooy dem ba seey ba gisatoo leneen lu dul yàlla lépp yàlla la amul leneen lu am lu dul yàlla loolu boo fa àggee mooy marxalatu wahdatul wujud mooy benn existence bu ne ci sa kanam amul yàlla rek moo existé léegi nga def existence yëpp mu nekk benn yàlla ñoom gis-gis yu mel noonu lañu am ci borom bi subhanahu wa taala loolu kon mooy seen pas-pas ci yàlla ci ne imma xulul ittihaad wala wahdatul wujud ittihad mooy bennoo mën na am ci lenn ci jaam ñi mais bu fekkente ni wàllu aduna bépp ak mbindeef yépp yàlla mi ngi ci seen biir mais tappalowul ak ñoom nekk benn waaye mi ngi ci biir mooy ñi ko saxalal ak amam bu bokkul ak amu mbindeef yi waaye ne mi ngi ci biir mbindeef yi mi ngi fépp ci noonu lay mën a bennoo ak lenn ci ay jaamam yi nga xam ne dem nañ bàgg seen état bi ñooñu seen wax moo gën a tane tuuti ndax saxalal nañ yàlla ak am saxalal mbindeef yi ak am waaye ku mel ne Ibn Arabi mi ñëw ne nekk di def différence shirk la li am mooy benn am moo am yàlla ci lum la feeñoo nga jaamoo ko ca lu wér la yàlla ci la feeñoo nga jaamoo ko ca lu wér la loolu ay wax yu doy waar la ci wax ba wax ne lu amul am na lu amul am na mooy am na fu mu ne daf fee newul moo tax ñu ne amul fa mu ne ku ko fa mën a fekk xam ko mu ne yàlla moom moo ko mën a xam ak moom mi nga xam ne mooy waliw bu mujj ci wa awliyaa yi ndax yàlla subhana taala day wax ne innama amruhu ida arada cheyan an yaqula lahu kun fa yakun yàlla bu bëggee sàkk mbir mu ne lu tax mu ne bu bëggee sàkk mbir mooy ne kon am na moo tax mu tuddee ko mbir te pourtant sàkkagu ko kon la mu sàkkagul bu ko tuddee mbir mooy ça existe déjà mais dans l'inexistence xaw ma nuñ koy waxee maanaam fu amul fa nga xamante ne bi mooy al maadum fa la nekk yàlla da koy jële foofu indi ko da koy transféré rek indi ko ci existence bi déggin boobu la am mu juum ci yàlla xam bi mu xam lépp luy am lu am ak lu amoon ak luy amagul yàlla xam ko bind ko ci lawxul mahfuz xam-xam boobu mu koy jël di ko sàkk muy am moom loolu nga xam ne ab xam-xam la loolu la jàppee benn existence boo xam ne de ça se trouve quelque part yàlla fa la koy jëlee di ko indi muy am mu ne foofa moom fa lay dem di tibbee moo tax nee na moom soxlawul jaar ci yonent bi parce que moog yàlla ñoo bokk balluwaay bi ñuy jëlee ndax moom mooy xaatimul awliya ibn arabi loolu lay wax pas-pas boobu ngay fekk ci lenn ci suyuxu mu tasawwifa yi ñu koy gëm gëm ne ñoog yàlla ñoo bokk fa ñuy tibbee ibnu arabi mi ci sori dëgg loolu la gëm ci seen ponkali la bokk seen yoon ci jaamu yàlla jaamu yàlla xam nañ ni euh, nit ki war na cee sàmm ay mbir mooy ki muy jaamu li muy jaamoo ak ni muy jaamoo loolu yépp foofu mu nekk lu wér ci lislaam ki ngay jaamu yàlla subhanahu wa xamal nañ ki gën a mën a jaamu ci nit ñi ne ko boo jaamu woon len boo boo jaamu woon leneen lu dul yàlla subhanahu wa taala yàlla neenal say jëf kon yàlla lañ war a jaamu niñ koy jaamoo itam xamal nañu ne ci yoonu yonente bi alayhi salatu salaam lañ war a jaar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad sallallahu alayhi wa sallam ci yoonam lañ war a jaar ci niñ koy jaamoo ak liñ koy jaamoo mu xamal ñu ko ndax mën nga xam ki ngay jaamu xam liñ koy jaamoo waaye ni nga koy jaamoo foog nga tënku ci ci li yonente bi alayhi salatu salaam jàngale loolu moo tax kon ab jaamu yàlla mën na nekk jaamu yàlla bu ñu yoonal ci kaw nii santaane ko nga def ko ngir yàlla te du nekk jaamu yàlla mooy defin bi lañ la santul defin bi kenn santuloo ko ndax yàlla bu ne aqimu sola nga dem def lu la neex ne lii mooy aqimu sola ji yàlla wax xam nga ni li nga def jaamuwuloo yàlla foog nga def sala boobu la yàlla sant ci anam bi la ko yàlla subhanahu wa taala sante mu soog a nekk ab jaamu yàlla comme niñ ko waxee ci koor niñ ko waxee ci aj màkka tey koor rek weer wi ñu nekk nii boo ko wooroon ne woor nga ramadan sa koor wérul pourtant woor nga comme ni ñuy wooree li ñuy war a bàyyi bàyyi nga ko li ñuy war a def def nga ko mais temps bi nga sàmmoontewul dong moo tax nekkatul ab jaamu loolu jaamu yàlla yépp principe boobu danga ko cee war a sàmm fi mu nekk nii bu jant bi soowee rek nga daal ne da ngay julli fajar te timis moo jot est-ce que dina wér pourtant temps bi nga changé donc moo yàq julli gi wala nga yokk ci fajar benn rakka wala ñaar rakka rek mu daal di yàqu loolu mooy wane ne kon defin bi lu yàlla santaane nañ ci tënku ci lim li ñu yonante bi alayhi salatu salaam jox la loolu nag euh, problème la boo xamante ne doo ko fekk ci ñoom ben bi ci des mooy sunna bi nga xamante ni sunna ñaari xaaj la sunna boo xam ne da ngay topp li yonente bi alayhi salatu wasallam def ndax moo ko def nga def ko comme ni mu ko defee nga roy ko muy sunna fi'liya ak loo xam ne da koo bàyyi te waroon koo mën a def dara doxul digganteem ak mu bàyyi ko mu tëb tëb bàyyi ko ñu xam ne kon da koo bàyyi ndax bëgg koo def loolu boo ko bàyyee dafay nekk sunna ba léegi mooy ne kon sunna dafa am fi'liya am tarkiya ci loolu lañ xamee ne kon loo xamante ni lu ko waral mi ngi ci amoon na ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam te amul lu dox digganteem ak mu def ko te taxul mu def ko loolu boo ko defee ginnaawam yokk nga ci sharia yokk nga ci l'islam règle yooyu buñ ci jógee ñu xool ñoom seen doxalin li ci njëkk mooy cheikh lislam taymi rahimahullah li mu wax ne alxaalisu minhum yabudu allah waxda لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية من فهم منحرفون إما عن شهادة أن لا إله إلا الله وإما عن شهادة أن محمدا رسول الله li ñu waxoon sànq ci tàmbali bi li yonente bi alayhi salaam définiré islam mooy ci ngay jaamu kan la ak li nga koy jaamoo lan la Cheikh Islam Taymiyya neex nee na ñi sànku ci ñoom dëgg fi ñuy jaamu sax dañ cey réer dañ cey sànku seen jaamu seen objectif ci seen jaamu jëmul ci yàlla daf cee réer ñi ci góorgóorlu ci ñoom ba jub ba mucc ayib mucc nañ ci loola dinañ jaamu yàlla wéetal ko ci njaamu gi waaye jaamu win bi nee lu ci ëpp duñ tënku ci li yàlla jox Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nekkul seen doxalin ndax duñ gëstu loolu di ci tënku ci anam bi xamante ni moom lañ ko waxee léegi loolu moo waral kenn si ñoom dem ba ni duuna ay taraddudin ak turuq ila allahi bi adadi anfasil xalaayiqi kenn ci ñoom dem ba ni sikki sàkk amul ne yoon yi yóbbu nit ñi ci yàlla mook noy yi doomu adama yi ñoo tolloo mook noy yi nit ñi ñoo tolloo yoon yi nit ñi mën a jaar ngir àgg seen borom kon benn yoon rek tënku ci new fi beneen bi ci def seen jubluwaay ci seen jaamu yàlla li ci ñu bari xamul ci melal bi ñu leen di melal ne ñu góorgóorlu lañ ci jaamu yàlla mooy dañu am njuumte ñoom ci objectif ban lañ am ci jaamu yàlla ndax ñoom waxoon nañ ci tàmbali bi ne ñoom seen jaamu yàlla nee nañ nekk ci di jaamu yàlla ngir ragal safara bëgg aljana bokkaale la wala ak matadi la ci sa jaamu yàlla boo dee jaamu yàlla da nga war a jaamu yàlla xubban ngir bëgg ñu sori ci ñoom dëgg duñu wax xubb may shawq la ñuy wa euh, ishq la ñuy wax ishq muy nopp nopp yàlla muy bëgg a dem ba bennoo ak moom jaxasoo ak moom jox ko sa jëmm ji mu jeex ci yow ñoom loolu la ñuy jëfandikoo moo tax duñu jëfandikoo baatu xubb bi nga xam ne mooy bëgg gi ci alquran ak sunna ñu bàyyi ko di jëfandikoo nopp te loolu yellul ñu koy jëfandikoo ci yàlla subhanahu wa taala mais bëgg a sori ci wax moo tax ñu wax ko léegi ñoom fàtte nañ ne safara nit ki ragalu ko ngir ragal jëmmi safara mais yàlla moo ko ko ragalloo kon mu war koo ragal ngir ragal ragal loo ko yàlla ragalloo wadcuuhu xawfan wa tamaan innahum kaanu yusaaricuuna fi lxayraat wa yadcuunana ragaban wa rahaban wa kaanu lana xaashiin arragba wa rahba mooy ñaari ruknu ñaari ponk jaamu yàlla ci liñ lay sant ngay xemmem di def ngir yool bi liñ lay tere ngay ragal di bañ a def ngir fay ngir fay ba yool bi du rek aljanna waaye ngërëmu yàlla la ndax aljanna moo koy jëmmal te aljanna mooy li gën a màgg ci lu nit di ut ndax fa la mën a amee gis boromam subhanahu wa taala ki nga xam ne xéewal mënu koo gën a rëy kon ñoom buñ ne soxla wuñu loolu leneen la ñuy ut kon loolu war nañu laaj lan la ak safar gi nga xamante ne kii ku fa ku fa jëm kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun yàlla xañ la gis boobu xañ la xéewal googu kon nit ki war na koo ragal ndax boo bëggee dara boo bëggee kenn mbëgg gu wér di nga bëgg lu mu bëgg ragal lu mu bañ kon ñoom bu fekkoon seen xubb bi lu wér la dina waral ci ñoom xaw xawf dina waral ci ñoom raja mais ñoom loolu la ñuy woote woo ba pare walbatiku yaakaar ne jaamu yàlla yi ñuy def seen objectif ci loolu mooy am ay mbir yu mu leen jural mbir yooyu mooy lan mooy ne lu bari ci lu nit ñi xamul ci erreur yu mutasawifa yi mooy seen objectif ci seen jaamu yàlla mooy am ay yëg-yëg yu leen di jural ak ay mbir yu ñuy découvrir muy lu ñu tuddee ay kashf ay fatx yu mel noonu mooy seen jaamu yàlla pour ñoom boo ci nekkee di ci def tarbiya nekk ci mar marxalatu tarqiya yaakaar nañ ni war nga di am ay mbir yu la yàlla di baaxee nga koy gis bu fekkee sa jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg wér na yàlla war na la di wan ay mbir nga koy gis dem ba àgg ci foo xamante ne dangay mën di wax mbir amal mu am di jeexital ci jamono ji ni muy doxee di wax mbir amal mu am mbir bul am du am fekk àgguloo foofu xamal ni sa wilaaya des na àggaguloo sa jaamu yàlla des wér loolu dem ba nekk ay objectif yoo xam ne ñoom dañ koy viser ci seen wérdi yi ñuy def ak jaamu yàlla yi ñuy def ak góorgóorlu bi yëpp lu ci ëpp nekkul ngir am ngërëmu yàlla am fayu yàlla boobu ñu doon doyadal mais pour am récompense yooyu nga xam ne da ngay mën di def ay xar baax ndax jàpp nañ ne loolu mooy firndeel sax nekk wal yi loolu yóbbu leen ci dem bay jëfandikoo ay moyens yoo xamante ni njabar la dem ba ñu bari ci ñoom tàbbi ci sixar ci njabar gu wér péng ci turu bëgg a def xar mbaax à tout prix nga ay xar pour wane na yow wali nga mu yóbbaleen ci lu bari ci mutasawifa yi dañuy jëfandikoo ilmu sixr ci pour mën di di naaw ci jamu jamono jeeg di dox ci ay ndox di waxloo ay bàyyi maag di ay nit guddi ak di def yooyu parce que fekk àgguloo ci mara maratib yooyu ci étape yooyu àgguloo sa li ngay góorgóorlu yépp gisaguloo njariñ li gisaguloo fruit bi loolu moo tax mu dem ba ilmu tasawuf cheikh yi ci suyux yi ci màcc yu ci bari dañuy xam ilmu sixr dañuy jëfandikoo sixr wala ñuy am ay njabarkat yoo xam ne ñoom la ñuy dem leen teel di jëflanteeg ñoom ñoom ñu leen di liggéeyal di leen defal seen yenn mbir yi kon ñoom jàpp nañ ne imma nit ki dem ba àgg foo xam day gis yàlla di ko woon ay mbir muy tëdd ay mbir di ko feeñu muy yeew naan gis naa nangam yonent bi feeñu na ma wala yooyu walla dem ba yaakaar ni foog muy am ay ndigal yu muy mën a joxe ci jamono ji muy tàbbi nangam na am mu am ak yu mel noonu nit feebar nga ni na wér na wér wala yooyu sa coobare di nekk luy am ci jamono ji am na ñoo xam jàpp ñaar yi boo ko boolee ci ngay nekkee ku mat moo tax shibli di wax ne kullu waliyin laa yakunu lahu mujiza fa huwa shibli di wax ne bépp wali yi buy woote woon wali nga te amuloo ay xar ay kéemtaan yooyu def xam leen ne ab la foog muy def ay kawteef ay kéemtaan yu doy war alors que mat dëgg-dëgg mi ngi nekk ci topp yàlla ak sunna yonente bi alayhi salatu wasalam même boo mënta naawloo ab lëpaa lëpp sax ci awliyaa ullaa yi nga kon du foofu lañ nattee wilaaya loolu dina ñëw ci kanam tuuti xëy na est-ce que nañ ci mën a àgg sax beneen bi ci des mooy ne ci bunt boobu lu bari ci mutasawwifa fay li tax boo leen di wax ci buntu sos ci diine lu ñu ko mën a dégg mooy defuñu différence ak buntu li nga xam ne ay aada la ay mbaax yu ñuy topp ci àdduna ak li nga xam ne ay jaamu yàlla la duñ nangoo def différence dañ lay wax ne la yéen a ngi def nangam ak sàngam te yonent bi daaw ko def sallallahu alayhi wa kon yi ngeen ñuy tere waroo leen ñu koo mën a tere pour nga comprendre loo ab mutasawif ne ñaari bunt yooyu bokkuñu ay delluwaay bokkuñu ay sukkandikukaay lu jafe la jàpp nañ ni nit ñi di sosee seen wàllu àdduna mbir di ci def noonu lañ sañee ñoom tamit def la de moo tax ñuy jëfandikoo lu mel ne xadisu antum aalamu bi umuri dunyaakum yooyu xadis yooyu dañ koy jëfandikoo pour wan ne kon mën ngaa yokk ay mbir def ay mbir ndax yonent bi alayhi na yoo xam daf leen ci bàyyi woon ak seen ndigal beneen bi ci des mooy li nga xamul mooy ne mutasawifa fay jaamu yàlla gi ñu leen di jiiñ yëpp yëpp yëpp yëpp am na ci lu bari ci ay mooy yàlla yoo xam ne dañ koy def wala bu ñu ko deful tamit ñu koy saxal ci ki koy def ndax dañuy sukkandiku ci ndogal ndax déggin bi ñu am ci ndogal njuumte la ahlu tasawuf ay qadariya lañ ay jabariya lañ ndax ahlu tasawuf dañ jàpp ne yàlla mooy baaxal ku ko soob nit day def lu bon ñuy sukkandiku ñoom ci ndogalu yàlla ci bañ koo ŋàññi ak wane ne yàlla moo ko baaxalul yàlla mooy baaxal ku ko soob loolu ci subuhaat yi gën a rëy ci subuhaatu mu tasawifa ci la bokk moo tax ahlu tasawuf la plupart du yittewoo al amru bil maaruf wa nahyi ak ci ay mooy koy delloo chaque fois moo tax ngay dégg ñenn ci ñoom naan nekk fi di jàpp nit ñi di critiquer naan ñi ngi njaaloo ñi ngi nàngam yépp ci yàlla lay dellu rek waaw yàlla yàlla la rek bu soobee yàlla ñëpp mën na koo baaxal loolu la ñuy wax ñoom chaque fois pour bañ a wax ak société bi pour jéem leen a jubbanti teg leen ci njub moo tax ñenn ci dañ dem bay jëfandikoo laa tasubbu dahra ana dahr inna allaha huwa dahr laa tasubbu dahr yàlla mooy jamono bu leen ŋàññi jamono te xamuñ ne jamono jooju yonent bi di wax ne bu leen ko ŋàññi mooy àdduna bi tàng bi muy tàng ak sedd bi muy sedd ak ngelaw yi muy ngelaw nga koy wax ci benn façon bi te loolu yàlla moo koy def mais ça ne ko pas dire que ak seenu caay yàlla la boo ko dénoncé yàlla ngay ŋàññi moo tax ñenn si ñoom di wax ne koo xamante ne dem na ba àgg ci buntu xool ndogal dëgg-dëgg ba gis ndogal du ŋàññi kenn moo tax ñu naan al aarif yaxillu lahu kullu shay koo xam ne dem na ba xam dëgg-dëgg ndogal ci yàlla képp ku mu gis ngay def rek dina xam ne kii li muy def topp yàlla la ndax yàlla moo ko sant mu koy def wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin yàlla moo ko sant mu koy def ñu jaxase bayna al amr al kawni wal amr dañ jaawale ñaari ndigal ci ndigalu yàlla yi ndigalu yàlla bi yàlla wax ne kenn mënu koo génn mooy ndigal gi nga xam ne mooy ndigalu suñu dund ak suñu nekkin ak tàggat ak doxal bi yàlla di doxal jamono ji amra kawni lañu koy tuddee loolu ak ndogal ak euh, nu tëdd ak digle yi yàlla di digle ci alxuraan ak sunna ak yooyu jotewuñ dara loolu mooy li yàlla dogal ci jaamam ñi ci wàllu doxalin ak nekkin ne lim ci doxal lim ci dogal kenn mënu ci dara loolu kenn du ci sukkandiku ci buntu lim ñu sant ak lim ñu tere kenn du neenal li yàlla santaane wala ngay def li mu tere ci ne yàlla subhanahu wa moo ko dogal ci man di def ihtijaaj bil qadar moo tax cheikh l'islam di wax ne ñoom dañoo nekk en contradiction parce que kenn ku nekk ci ñoom boo ko ñëwoon dóor ko ab pes da dóor ab pes du ne yàllaa ko dogal boo ñëwoon nangu alalam du ne yàllaa ko dogal boo ñëwoon def ko lu ko metti dafay fayu wala mu mer mais du ne yàlla moo ko dogal te bu ñëwee ci buntu mooy yàlla yi ak yooyu di sukkandiku ci ne moom lu nit def topp yàlla la au fond ndax loolu yàlla moo ko dogal ci moom philosophie boobu lu mutasawi fay gëm la xëy na ñi xamul tasawuf mais mutasawi fay dëgg lu nit nekk topp yàlla la ndax ñépp duñ génn ndigalu yàlla te xamuñ ne ndigal boobu mooy ndigal bi dellu ci alkawnu mais delluwul ci ashar bi ñuy mujjee ci waxtaan bi mooy seenu jéggi dayoo ak mu mutasawifa seen diine li ci ëpp jéggi dayoo la muy alxuluw ñu wax ne loolu yonente bi alayhi salatu wasallam saa bu musaan a nar feeñ ci jamonoom mu delloo ko ba mu toogee ci jàkka ji di wax gis benn waaye taxaw ci ci jant bi daf ne lii lan la ñu ne ko kiré mooy diw nee na dafa nizar ne day taxaw ci jant bi du dem ci kër gi ba pare day woor mu ne nee leen ko na mottali kooram waaye na jóge ci jant bi mu toog te dem toogi ci kër gi jant bi mu taxaw te dem toogi ci ker gi mu tëj buntu boobu ñoom Ousmane ibnu Mad'un biñ ñëwee ak tàngoor ci këram laajte li muy def yépp ñu wax leen ko ñu xeeb ko ne moom yàlla jéggal na ko lu jiitu ci ay bàkkaaram ak li mujj ñun matuñu ñenn si ñoom ne dootuñu dog dañuy woor naka jekk ñenn si ñoom ne dootuñu nelaw guddi ñenn si ñoom ne dootuñu sëy ak jigéen yonente bi alayhi salatu salaam bi mu ñëwee daf leen xamal ne maa leen gën a ragal yàlla gën leen a xam yàlla subhanahu wa taala ndax xam yàlla mooy waral ci nit mu ragal yàlla xam yàlla gu waralul ci nit ragal yàlla tënku ci ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu du xam yàlla damay takk ay soxna damay wor di dog damay nelaw guddi di julli guddi faman raghiba an sunnati falaysa minni mu wane ne kon xulu nekkul lu bokk ci diineem moo tax mu doon wax naan iyaakum wal xulu mooy tandiku leen jéggi dayoo ci diine mu doon wax tamit naan buistu bil samha buistu bil xanafiyati samha doon wax ne yàlla daf ko yebal ci diin ak tawxid goo xam ne dafa nekk diin ak jàppandal taral amu ci لأنه احنا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه اكلفوا من الأعمال ما تطيقون لأنه احنا فإن الله لا يمل حتى تملوا yàlla du tàyyi fekk tàyyiwuloo leen mooy yàlla du tàyyi même bu ngeen tàyyi du caagante ni bu ngeen fekk tàyyiwoo leen du tàyyi yàlla du tàyyi mooy yàlla du tàyyi même bu ngeen tàyyi laa yemal xatta tamallu mooy laa yemal wa in tamallu xuluwuhum muy seen jégg dayoo ci kim njëkk ci seen jégg dayoo googu mooy ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ci yaakaar ne bëgg ko ak màggal ko mi ngi nekk ci yàllaal ko def ko muy yàlla yonente bi alayhi salatu salaam bëgg ko ak màggal ko mi ngi nekk ci jaamal ko def ko muy ab jaamu yàlla bi gën a mat ci jaamu yàlla yi ki la gën a mat ak njaamoom ci yàlla moo la gën a mat kon màggal nit mi ngi nekk ci matal ak jaamoom ji mu nekk jaamu yàlla moo tax ñi juumoon ci banu Israël jël seeni yonent jéggi dayoo ci ñoom bëgg leen yàllal yàlla wax ne juum nañ juum nañ muy ahlul kitab bi mu wax ne laa taxalu fi dinikum wala taqul ala allahi illa alhaq am ci mutasawifa yi biñ ñëwee ñoom tamit ñu jaaraat ci yoon boobu muy am ci jullit ñoo xam dañ ñëw jaaraat ci yoon boobu ahlul kitab jaaroon ci xulu biñ defoon ci seen yonent ak seen i saalihin yaakaar ni bëgg leen ak màggal leen mi ngi nekk ci jéggal leen dayoo génn leen ci cadre nit yóbbu leen ci cadre borom bi subhanahu wa taala yonente bi alayhi salatu wasallam mu see joxe jàngale bu am solo benn bis dafa am ku ko dikkal ne ko damaa gént dajeeg benn ab ab chrétien ab nasaraan ne ko yéen day waa ahlul kitab ñu baax ngeen doon doon bu fekkul woon wax ji ngeen di wax naan isa doomu yàlla la nee na waa ji ne ma man tamit yéen julit ñi ñu baax ngeen doon doon bu dul woon li ngeen di wax naan bu soobee yàlla soob muhammad waa ji ñëw wax ko yonente bi alayhi salatu yonente bi alayhi salatu tegu ci bat dafa yéeg ci min bar bi ne am na wax ju ngeen daan wax ma bëgg leen ko tere ker sa tax terew ma leen ko bu ko kenn waxati ci yéen nettali leen ko ne bu kenn waxati ci yéen insha allah wa sha muhammad kuy wax na wax ne insha allah summa shaa fulan mais bu kenn waxati loolu ci yéen tëj buntu boobu kon wane na ni foofu ña nga fa bëggoon jaare xulu bi ahlul kitab tabbi woon ñoom tam naaroon ci tabbi ci jéggi dayo moo tax mu doon wax ne la tatruni kama atarati nasara isa ibn maryam bu leen may ëppalal sama dayo di ma jéggil dayo comme ni ko nasaraan yi defee ci isa ibn maryam innama ana abdullahi fa qulu abdullahi wa rasul jaamu yàlla la de leen wax jaamu yàlla akub yonam tam ba nit taxawee ba mu taxawee ci kanamu nit mu naan ko anta sayiduna wabnu sayidina def ne ko quulu bi qawlikum aw bi baadi qawlikum wala yastajriyannakum cheytaan wax leen lu ngeen xam te bañ a topp cheytaane mu leen di nërmeel ak di leen sànq wax leen wax ju yam wax joo xamante ne wax ju ñàkk jéggi dayoo la kon yonente bi alayhi salatu wasallam ku mës tëj buntu boobu la waaye ñoom yaakaar nañ ne li yàlla di wax yépp naan qul innama ana basharun mislukum yuha ak li mu waxoon ne innama ana basharun mislukum ansa kama tansawna fa ida nasitu fa zakkiruni yooyu ay wax la nii rek ci kaw pour sama genre yi sama classe gi wa illa moom yàlla moo tibb ci leeram bind ko yàlla moo tibb ci leeram bind ko loolu koy mooy yàlla la yàlla kan moo wax ne am na matière boo xam ne moom ci la nekk ba ciy tibb di ci bindaate loolu mooy njëkk a doy dal yàlla ñaareel bi kan moo wax ne yàlla leer la leer mbindeefu yàlla la ko yàlla sàkk malaaka yi ay leer lañ kon yàlla leer la comme malaaka bay jël ci leeram di bindaate yàlla xam nañ ni xijaab bi dox suñu diggante ak moom ba ñun mënuñu koo gis ak leer la bu ko dindi woon fépp foo xamante ni bii bëtam yam na fa mooy kon mbindeefam yépp ndax bëtam weesu na sax mbindeef yi kanamam ceeñeeri kanamam dina ko dina ko lakk la axraqat sabuhaatu wajihi waxul nuur wajihi daf ne sabuhaatu wajihi kon jëmmi ne yàlla subhanahu wa dafa jël ci leeram bind ko ba ñenn ci ñoom di jéem a tontu ñi leen di wax ne kon yàlla daa jël ci jëmmam bind yonent bi kon loolu am na lu mu wàññi ci yàlla mu ne mi ngi mel ne nga tëj ab néeg taal làmp lay génne ca xarante bunt ya du wàññi ci leer ga dara te loolu c'est faux leer bi bu amul fu mu jaar ci la concentration di gën a foor que bu amee fu mu jaar la cay jaar di génn feneen loolu day wàññi degré wu leeraay bi kon loolu wax ne wàññiw ci dara du dëgg ba pare wax ne yàlla moo ko jël ci jëmmam bind ko loolu amul fu mu wér wérul yàlla moo ko bind ci leeram ku yàlla bind ci moom la la bindee loolu benn ñaareel bi ci des mooy liñ wax ne moo tax yàlla bind képp ku mu bind yàlla moo tax mu bind la lawlaaka lawlaaka maa xalaqtul aflaak xadis yoo xam ne mawduwaat wérul jaaduwul sax ñu koy askane la yonente bi alayhi salatu wasalaam xadis bi ci xaw a wér nekk ci mustadrakul xaakim ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne dama nekk ak yonent fekk aadama mi ngi ci diggante Euh, bayna tiini wal ma mi ngi ci diggante ban ak ndox ci nu mel noonu lañ ko waxee te cheikh lislaam nee na loolu sax wérul ndax aadam mosul nekk diggante ban ak ndox aadam mus ta nekk diggante ban ak ndox loolu wérul waaye bu ñu waxoon sa xadis boobu ne yonent ba muy nekk yonent fekk aadam pare mbindam pareegul loolu day dellu ci ndogalu yàlla bu la neexee nga ne nekk nga étudiant fekk ne aadam yàlla bindagu ko loolu wér na wala wérul est-ce que day tegtal ne kon boob moom yonent la mi ngi toog yàlla def ko ab yonent mu ferenkulaay di xool aadama ñu koy sàkk ñoom gis-gis boobu lañ ci am fekk ne loolu wérul xayru saxiix kon ci ki ñi njëkk a bew ñoom di ci jéggi dayoo mooy yonent bi alayhi salatu salaam ci di ko tappal ay gratte yàlla yaakaar ne loolu mooy bëgg ko seen bëgg gi ñu bëgg yonent bi yépp fa la lu yàlla sàkk moom moo tax euh, boo ko ñaanee mu may la du moroomu gaa yi raw na leen Mamadou Lamine moo sut gaa yi moo leen ëpp borom nangam njol màggam leneen la ci def mooy seen machaayix yi seen njiit yi loolu moom l'islam digle na yaru diggante nit ki ak borom xam-xam ak respecté borom xam-xam waaye ëppal l'islam santaanewu ko seen ëppal gi ñu ëppal ci seen i borom seen i njiit seen i cheikh dafay dellu ci déggin bi ñu am ci wali ndax jàpp nañu ay awliya lañ wali xam nañ ni yàlla subhanahu taala li mu wax ci quran mooy ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun lan la ci teg daf ne alladina amanu wa kanu yattaqun yàlla wale wu mu bégal ci ñàkk am ragal gu ñuy ragal ca la ñuy fekk ak lañ bàyyi ci seen gannaaw ñu ci am njàqare daf na ñooñu mooy ñii nga xamante ne dañ gëm yàlla ba pare wattandiku borom bi subhanahu wa taala mooy ki am gëm yàlla gu wér ba pare am istiqama am njub ndax taqwa mooy istiqama mooy lu yonent bi waxoon sufyaan ibni nawfal waa ji ñëwoon ne ko wax ma wax joo xam ne ci l'islam dootuma ko laajati keneen da may résumer l'islam résumer ma ko ci deux mots deux mots yonent bi ne ko qul amantu billahi summa istaqim islaama ngoog gëmal yàlla ngëm yàlla gu wér te tegu ci istiqaama tegu ci njub loolu kay lislaam lépp lislaam mi ngi ci loolu la yàlla wax ne képp ku ci ne waliwu yàlla nga waaye yàlla nga mu des nag ñete ne dañ ciy ëppante dañ ciy sutante lu nit ki gën a góorgóorlu ci ñaari ruknu yooyu ñaari piliers yooyu mooy al iman wa taqwa wilaayam di gën a mat ca yàlla loolu mooy wilaaya loolu kon góorgóorlu di def ci ay jaamu yàllam di ci gën di sori di gën di sori ci wilaayatullah di nekk waayub yàlla loolu mooy waliwu yàlla subhanahu wa taala gi yàlla subhanahu bi taala ñoom nag waliwu yàlla pour ñoom benn grade la boo xam ne yàlla mooy ñëw rek nommé la général nga nekk général léegi yor commandement bi di def lu la neex déggin bi ñu ci am nekk déggin bu doy doy doy waar déggin boobu ñu ci am nga xamante ni bi moom moo euh, mooy mbir mi mooy point de départ bi ci seen relation yi ñu am ak seen gars yi bi gën a màgg ci yonent yi mooy ki gën a màgg ci wàlli yi awliya yi mooy yonent yi di al anbiya wa rusul ñi ci gën a màgg ci gën cee am darajatu wilaya gi gën a kawe mooy ulul azm ki ci gën a kawe mooy muhammad ibn abdillah jamaa bayna al wilaya wa nubuwa ibn yi moom lañ la wax nee na yonent yi ay anbiya lañ ay awliya lañ bu dee nubuwa gi c'est ay garab la yu leen yàlla jox mais wilaya gi sama suuf lañ nekk ndax man maay xaatimul awliya comme ni Mouhamad nekkee khatimul anbiya man may khatimul awliya wali buy wali ma la gën te ñom ci sen nubuwa am na lu ma leen mais liñ ma soxlal ci wilaya moko upp kon sama ginaaw la top khatimul awliya gogu nga xamanteni xamante ni alxakimu tirmidhi te Mouhamad ibn Ali at tirmidhi ben waaye ci ñu njëkkoon daan amon na ak yëngatu ci hadith la chak mais ku soobu la ci pass pasit tasawuf am ci ay xalaatin ak ay gisin yu doy war bokk na ci xalaatin yooyu moom moo njëkk indi idée khatimul xaatimul awliya ne daa am koo xam ne mooy ñëw nekk axirul awliya xaatimul awliya bi mu waxee loolu wax ci ay ngëneel yu bari yoo xam ne kooku dina ko am am ay gars yu ñoo fëgg seen dënd ne ñoom la ibnu arabi ñëw ne moom la ndax nee na dèjà moom muhammad ibn ali la tudd comme ne ko xakimu tirmidi tuddee te xakimu tirmidi wax comme ay question ne kii nekk xaatimul awliya bu ñëwee moo koy résoudre moo koy solutionné nee na yooyu yëpp moom moo ko tontu moo ko tontu sax ba yokku ci am ñeneen ñu ñëw indi yeneen ku mel ne ak Tijani yi Ahmadu Tijani yi moom bi mu ñuy def ne mooy xaatimul awliya Baye Niass sax nee na mooy xaatimul awliya mais problème mooy ñi mujjee ñëw dañoo xam ne bu ñu waxee xaatimul awliya mooy tëj buntu bi day causer problème ñu ne xaatimul awliya ka ko doon wax li mu ci namm mooy mooy ki ci gën rek même bu amee ñu ñëw ci ginnaam nekk ay awliya mais boo xoolee idée bi dëgg-dëgg ki ko njëkk wax li mu ci namm mooy mooy tëj buntu bi mooy kon ku gëm yàlla gëm yàlla ku wér ragal yàlla dootul ñëwati ginnaawam bu dee ginnaaw yonent yi ki gën a màgg ci awliyaa yi mooy Aboubacar Siddiq ginnaaw ba Omar ibn al-Khattab ak euh, Ousmane Ali ginnaaw ba baqiyatul ashara al muhajirun wal ansar ak ñooñu ñoo ñi gën ci awliyaa yi ñoo ñi ci jiitu beneen bi ci des mooy nekk waliw desu ci charte nga nekk maasum ne doo jum nit mën na nekk waliw di jum ndax yonent bi def ne kullu ibni aadam xata ay doomu aadama lañ te yonent bi def ne bépp doomu aadama dafay jum yonent yi sax borom xam-xam yi dañuy wax ne dañuy juum yonent bi daf ne woon innama ana basharu mislukum ansa kama tansawun nisyan te la ndax boo fàtte da ngay juum fàtte yu mel noonu daan na ko def sax wala la daan na ko def donte am na xadis bu ñëw ne la ansa wa innama wa innama unassa li assunna man du ma fàtte waaye dañ may fàtteloo ngir ma yoonal waaye xadis bi wérul xadis boobu wérul mi ngi ci moo to al imam malik ci balagaatu malik yi nga xam ne wérul ci la bokk kon cheikh lislaam neena nekul ci charte nga nek wali ne foog mu nek ma'soum bo xam dañ koy fek ci njumte lolou rafida yi ñoko ñëk am ci seen i njiit seen aima mu tasawu fay jëlee ko ci ñom ne nit ki bu nekkee waliw moy ma'soum lay doon lépp lu jógeeti ci ci mom dootul nekk ci njumte nit mën na nekk waliw te du tere ba légui dina am ay njumte yu am yu tàbbi ci mom dina am sax lenn lu mu mëna ñak xam ci sharia lo xamante da koy rëcc benen bi ci dess moy nekul ci charte waliw timit ngay def ay xarmbax di wax lo ay mbam ak di dox ci ay ndoxat dinaaw ci ay jaww ji loolu nekkul ne charte pour nit ki nekk wàllu foog mu def loolu moo tax qurtu bi ne qaala ulamauna rahmatullahi alayhim wa man azhara allahu taala ala yadayhi mimman laysa bi nabiyin karamat wa xawaariq lil aadat fa laysa dalika dallan ala wilayatihi qurtubi bi nee na waxuma la sax nekk charte ci nga nekk waliw nga def mbax xar mbaax mais nit ki yàlla mën na tàbbal ci loxoom loo xam ne dafa xar mbaax te kenn du ci sukkandikoo ne kon ab waliw la kenn du ci sukkandikoo ne kon ab wàlliwu la yàlla mën na defal nit ci loxoom ay karamaat lenn ci karama mu am lu xotti mbaax lu nit ñi xamoon te kenn du ci daal di sukkandiku automatiquement ne kon ab wàlliwu yàlla la déggin boobu mu fay ñoo ko tas ci biir julit ñi mu ne xilaafan li baadi suufiyati wa rafidati xaytu qaalu in dalika yadullu ala annahu wali id law lam yakun waliyan ma adhara allahu ala yadayhi ma adhara xurtu bi ne loolu nag ute naag mutasawifa yi ak rafida yi nga xam ne dañ jàpp ne ku loolu am rek ci yow ab waliw nga ndax bu bu la yàlla defuloon ab waliw kon du la defal lu mel noonu loolu njumte la bu dee xatmul wilaaya moom liñ ci mën a wax lu baree baree bare la ci yi nga xamante ni ibnu arabi wax na ko ci euh, ak tijaani bi mu ñëwee moom tamit waxaat ci ay wax yu doy doy waar ak li mu wax ni indi na ko ba ni sax moom li ibnu li kële tontu ibnu arabi tontu ci question yi xakimu tirmisi yi waxoon tontu na ca ba yokkal ko ca moom yu kooku posé wul woon yoo xam ne moom rek moo ko xam ak yu mel noonu ñoom dañ jàpp ne wali yi ki ci gën a màgg mooy bu bi nga xamante ne bii mooy kiy doxal jamono jo jamono ci loxoom la ko yàlla di teg amam ci jamono mi ngi mel ne ni ruu mel ci jëmm nga xam ne daanaka mooy ruu àdduna bi mooy ruu bi nga xam ne mooy wër wër ci àdduna bi yépp lu fi xew problème bu am moo koy lijjanti lu fi am mi ngi koy gis li ci teg bëtam lu am partout dans le monde kooku mooy xutbu bi ñuy xutbu zaman kooku mooy martaba bi gën a kawe ci martabatul awliya ndax ñenn ci ñoom dañuy wax ne martaba bi ci jiitu mooy martaba bi nga xam ne da nekk di dox ci naaw ci ngelaw li di dox ci ay ay ndox boobu mooy martaba bi gën a tuuti ci maratibul awliya kon ñoom loolu sax nekkul martaba bu kawe martaba bu tuuti la martaba bi ci topp mooy boo waxee dara ne amal mu am boo ne ko kun fa yakun mu nekk martaba bi ci topp mooy martabatul qutbaniya mooy bi ma lay wax noonu nekk xutb boobu mooy nag ba ca gën a kaweeti kon ñoom wilaaya ñetti martaba lañ ko amal martaba boo xam ne da ngay naaw ci ndox ci di dox ci ay ndox ak di naaw ci ay ngelaw moo tax ñuy wax ne kon seen waliw julli na ci ndox mi nañ xam ne lenn ci moto sow yu fay jàpp nañ loolu mooy martaba al martabatu suxura mooy bu ndaw bi loolu garaawul jarul xëy na bàkkoo ci moto sow yu fay yi martaba bi ci topp mooy wax dara ne ko fa yakun nekkal mu nekk àgg ci mën a wax dara ne amal mu am beneen bi ci des mooy nekk xutb boobu moom du caaxaan dem ba ci seen wilaay wala awliyaa yi ñenn ci ñoom nee nañ dañuy xool nit mu daal di texe dugg aljanna moo tax maa ngi ci gis Cheikh Mouhamad bi ñu ciy wax ak euh, kenn nee na daf ne dafa bëggoon dem fekk jigéen ñi nga xam ne dañ leen di nëbb ci kër yi ñu nekk ay ay jànq nga xam duñ génn mu dafa bëggoon duggoon pour xool leen pour ñu texe ndax moom ku mu xool nga texe Cheikh Mouhamad ne jarul mu fay dugg mënoon naa taxaw fu ñu ko séenee rek ak tijaan yi nee na moom dafa daje kenn ku mu doon wër ci Égypte ne ko dafa bëgg a nekk xutbu kooku ne ko nekk nga ko demal li nga doon wër am nga ko ne noonu lañ ko falee mu nekk xutbu noonu la nekkee waliw am na ci ñoom ñoo xam ne sax dañ daan bindalaate bindal la fay la demal def naa la waliw nome naa la ko ñoom isma bi nga xam ne moom lañ doon wax sànq ne du charte ci koo xam ne ab waliw la mu nekk maasum ñoom ñu ngi koy tuddee almanu mooy yàlla daf koy fekk ci njuumte moo tax alqushayri di wax ne waalam anna man min ajalli alkaramat allati takunu lil awliya dawaamu tawfiq للطاعات والعصمة عن العصيان والمخالفات دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات نانا بوكنا تي mandarga yi gën a kawe yoo xam yàlla daf koy joxe koo xam ne ab waliw la mooy daf koy fekk ci lépp loo xamante ne ay njuumte la du ci tàbbi lépp loo xam ne ay mooy yàlla la ñenn ci ñoom nee nañ mooy yàlla sax mën koo def yàlla da koy dindi ci moom maanaam mën a def mooy yàlla gi nekk ci nit nga xam ne bu ko bëggoon def def ko loolu yàlla da koy dindi ci moom dootu fi nekkati nga xam ne moom ci boppam dootu mënatee def mooy yàlla kooku kon léegi moom maasum rawatina weesu na maasum seen wa wilaaya googu boo ci àggee day dagan ci yow ngay def yi nga xamante ni yàlla daf ko xaraamaloon ci ñu nekkul waliw ndax sharia daf lay daal di wàcc yu bari ci ay bàkkaar dañ koy def ñenn ñi léeg-léeg ni ñu koy layalee mooy kii àgg na foo xamante ni lii xaramatul ci moom ñenn ñi ne lii daf koy def ngir làqatoo ko ngir nëbb ne moom wàlliw la pour nit ñi bañ koo xam muy naan sàngara di dem ci baar yi ak yooyu pour nit ñi bañ a xam ne ab wàlliw la moo tax mu tasaw fa ngay gis ñu romb ab dof ci mbedd mi naan boo moytul wàlliw bu mag la de nit di tërëf mandi di romb ñaan boo moytul ab wàlliw la day làqatu ndax ñoom gis-gis boobu lañ am ci wàlliw dañ jàpp nit mën na nekk ci afjar naas ñi gën a nekk ay faajir fujjaar ba pare nekk ab wàlliw buy làqatoo loolu moo tax Shaaraan yi mi ngi nettali ci benn cheikh bu mu doon tarjama boo xam ne lu muy def nee na kooku day gis nit mu yor mbaam mu ne ko téel ma bopp mbaam mi di sëy ak mbaam mi te nee na ci wàlliwu yu mag yi la bokk nee na bu kooku di ko jéem a dingat di am lu muy wax mu samp la fi nga taxaw doo mën a yëngatu maa loolu ci ak kattanam la mu samp la fa doo mën a yëngatu di def mbonte gu mel noonu nekk ci wàlliwu yàlla yi gën a mag nasal allah salamatu alafia jàpp ne waliw day dem ba mën a génn ci tariqatu muhammad ñoom ñu ngi ci sukkandiku ci qissatu xudar bi nga xamante ne bi Moussa toog na ci bani Israël wax wax ju am solo am ko ko dikkal ne ko ndax am na ci àdduna ku la ëpp xam-xam Moussa ne ko déedéet yàlla wax yu ko ne ko lan moo tax biñ la laajee loo xamul delloowuloo ko ci man am na ca majmaul bahrayni ku fa nekk sama jaam boo xam ne jox naa ko xam-xam boo xam ne xamuloo ko moo la ëpp xam-xam yàlla ne ko nan laay def ba dem ci moom mu wax ne na jël benn jën boo xam ne dafa dee mu def ko ci benn ab saak yore ko bu demee ba fi jën bi rëccee na xam ne foofu la nekk bi mu ànd ak xale bi dem ba yàlla def loolu am mu xam ne kon foofu la ñu dellu fa jën ba rëccee woon fekk ko fa Moussa ne ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda Moussa laaj ko ne ko ndax mën naa nag yow nga baaxee ma ci li nga xam kooku ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabara Moussa wax ba ànd ak moom kooko wax wan ko ci xam-xam lu mu xamul woon ñu ne kon xudar ab wàlliw la Moussa ab yonent la te xudar xamal na Moussa lu mu xamul woon kon ab ab waliw mën naa sori gën a sori ab ab ab ab ab yonent loolu moo tax kon seen waliw yu ñoom di mën a xam ci xam-xam loo xam ne yonent bi xëy na xamu ko wala xamleew ko loolu kon moo tax ñoom yittewoo loolu qissatu xudar di ko ci sukkandiku mais loolu xeyru saxiix li ci njëkk mooy ne xudar ab yonent la woon li koy gën a firndeel mooy li mu wax ne wa ma faaltuhu an amri dalika tawilu ma lam tasti alayhi sabara وما فعلته فعلته عن امري لم واخنا لي دفو مكو سي سما تشوبره يالا مكو كو خمال مو دفكو بن نيارل با تيميت موي موسى بيكو يالا سبحانه وتعالى دي واخ دف واتيناه من من عندنا علمناه من لدنا علما واتيناه من عندنا اتيناه من عندنا رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما من لدنا علما بوب لنج تودي العلم من لدني موي خم خم بيغا خم يالا مكو جيل ديريكتومون جوخ مي رحمه فوف بي يالا دي واخ رحمه فوف لي مي تيكي مو النبوه aataynaahu rahmatan min indina moy yàlla daf ko jox ak yonent mu nek ab yonent motax borom xam-xam yi wax ci wax yu bari ci wane ne khudar ab yonent la won bo xamanteni yàlla daf ko yabal ci benen sharia bu bokku la sharia muhammad musa motax li mu nekkon musa xamuko li musa nekkon mom timit xamuko motax musa ne ko am nga lo xam lo xamni xawmako khudar moko wax musa man itam amna luma xam lo xamni xamuloko ku nekk kon amna lu mu xam lu sa morom xamul kon xudar ab yonent la won ben ñaarel bi ci dess moy même bu fekke nekul yonent Moussa yàlla yebalu ko woon ci xudar Moussa ab yonent la bo xamanteni yàlla subhanahu wa taala yebalu ko woon ci xudar kon xudar mën na nek ci benen sharia bo xam ne Moussa du ko xam ndax yonent yi jitu won yàlla ci sen xet leen di yebal mais li gëna wér moy na xudar ab yonent la won bokku na ci lu gëna firndel هذا فراق بيني وبينك bayni wa baynik borom xam-xam yi ام nañ ab nit lu mu am am xam-xam du dajeeg akub yonent naan ko hada firaqu loolu kuy nekk ab yonent rek moom moo koy moo koy mën a wax ab moroomu yonentam kon foofu la ñuy taxawee bu ñu yàlla defalee tawfiq insha allahu taala bu ñu amee beneen jataay lu ci des lu tuuti la ñu àggale ko insha allahu taala wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain maa ngi jéggalu nag ci lu ñu xawee xaabaabal tuuti léeg-léeg thème bi moo lay jàpp ba dootoo mën a tënk loolu daal barakallahu fikum حياكم الله